par rapport ak euh, autonomisation des femmes par rapport ak seen dépend seen indépendance du même général bu weesu rek wàllum économie mais on voit qu'au Sénégal encore les femmes dañoo dépendre bu baax ci ci ci lu bëree bëri rawatina. Euh, ci ci ci ménage yi on voit que ñu bëri elle dépend encore des hommes dans l'administration dans les services et autres am na ay contraintes yoo xam ne dafa leen tere avancer très souvent euh, tey jii nii par rapport ak tey booy xool ak démb ndax jàpp nga ne Sénégal amal na ci ay jéego. Euh, damay damay profité ci occasion saluer aussi euh, bravoure jigéen ñi. Mm-hmm. parce que tey xam nañu kër bu nekk bu jigéen taxawul kër bi du taxaw. loolu moom foog naa yàgg na mais rawatina tey peut-être mm-hmm. boobu c'était pas côté côté économie côté sociale mais tey jii nii côté économie la côté sociale bu nekk. Mm-hmm. xam nañ ni que tey toll nañ foo xam ni benn góor mënul yore këram à cent pour cent. soo amul jigéen ji dafay am fu mu jàpp góor bi am fu mu jàpp ba góor ñi sax léegi bañ nañ ko bugg ñu takk koo xam ni amul am amul salaire <laughs> mm. donc loolu la parce que mënuloo yow sa sa charge locative yi ngay am yi mm. nga war a fay loyer war a fay courant war a fay ndox su feebar faju xale yi mm. ba pare sa sa jabar lu mu teg la ko il faut que moom déjà su amee dara peut-être yenn saa mu jox la cadeau mais mu munal boppam yow parfois nga jox ko kaddu mu neex la mais pression boobu nga xam ni nga war a war a sa jabar dépense yow say doom dépense yow loolu dafay metti dafay tax day andi ay tension sax mm-hmm. dans les te gis nañu jigéen ñi tey ku nekk mu ngi takk ndigam mm-hmm. boo demee dans la banlieue même avant finance même nu ñuy financer lépp lépp sax tey même le projet yokk koom-koom bi ñuy def bi hmm. dañ ko calquer sur culture euh, femme culture sénégalaise yi parce que jigéen ñi dañu am euh, euh, habitude daf mbootaay daf tontine hmm. tontine yooyu bu buñ ko teggee ñu réaliser ci dara am na ñoo xam ne peut-être exceptionnellement mais même léegi mu ngi wàññeeku parce sensibilisation nit ñi bàyyi na léegi teggi seen tontine rek daal di ko yàq hmm. léegi ku nekk mu ngi wut fexe am am loo xam ni dina am indépendant ba pare mu jàppale si njabootam njabootam barket njaboot bi réussir loolu moo tax jigéen ñi vraiment gis naa ni am na changement surtout nag avec le régime du président de la République Macky parce que li ma tàmm wax j'étais directrice du Fonds national de crédit pour le femmes avant may nekk directrice fonds bi mosuma yëg ni am na ay financement yu ñu jox jigéen mais depuis ñu ñëw les financement on été démocratisés dañ koy bu ñuy dem financer fenn dañ koy wane à la télé dañu def cérémonie ñëpp ñëw ñu wane ko à la bu amee tournée ñëpp xam ni financement ba finalement jigéen ñi xam nañu fu ñuy dem pour mun a am financement loolu yëpp ay jéego la yoo xam ne ci président Sall mais côté côté côté côté maanaam teewaayu jigéen la présence de la femme ci société bi ci sphère politique yi gouvernement assemblée yu ni mel le combat aussi jiitu na le président Macky Sall waay waay euh, parce que parité parité aussi si si mandat électif yi mhm. bon euh, Ablaye Wade dugaloon na ko mais si président de la République bi mu ñëwee si lañ promulgué loi bi mhm. donc moom am na jéego bu rëy bu mu ci def te ñëpp xam nañu moom fonk na jigéen mhm. parce que ñëwee nga ne bëggatuma jigéen buy soq àll bi yëpp dugaleel ma ay moulin bu bëggatuma jigéen buy soq génne ay financement financer les jigéen ñi pour leur autonomie économique mais ñu bëri dañ ciy gis benn façon Euh, benn adresse boo xam ne li ko tax a jóg mooy xëy na am seeni faveur pour après wàllu wàllu wàllum politique parce que souvent aussi les femmes souvent loolu dañ dañ koy wax benn gain politique. bu ci gars mais mais léegi ñëpp war nañu. un clin d'œil la à la léegi ñëpp war nañ xam ne président de la république xol bu mu yore bi léegi sénégalais yëpp xanaa ku ko bëggul ñëpp xam nañu bëggul gis kenn ku sonn bëggul xa xalaat ni am na kenn ku sonn. Mm-hmm. nit ku mel noonu la bëggul gis nit kuy sonn donc xam na ni jigéen ji xam na coono jigéen ñi. moo tax bi mu ñëwee mu ne na loolu na arrêté depuis bi mu ñëwee boobu dafa doon wax ministre de la femme buggatu bugguma dugalal ay moulin partout c'est pas normal tey fu ñu nekk mu am jigéen boo xam day sokk ak mhm. loxo dama si profiter si occasion bi bi ñu demee euh, kii euh, fële euh, Nimzat Nim Nimzat c'est à Sédhiou mhm. dans la commune de Kossi Kossi ça s'appelle dañ fa gis ay ay jigéen ñuy sokk ma ne ma ne sama agent yi fotol leen ma lii lii su ma demee il faut PUDC ma ma jox lee ko mm-hmm. parce que président dafa ne bëggatul gis benn jigéen buy sokk jéego yu am solo daf nañ ko te jigéen ñi ci bopp soo demee ñoom ñoo la koy wax mm-hmm. mais ci wàllum politique euh, madame euh, Sow euh, mais tamit ma egg eggali foofu mais mais munoo fexe munoo ne tey jii amatul fenn fenn foo xam ni des foo xam ni kenn sokkutul mais quand même daf na jéego yu am solo yoo xam ne c'est ça allègement des tra te loolu dafa am solo parce que ñun bi ñuy financer au début dañ doon wax ni que man parce que jigéen boo ko financé il mu am temps mhm. bu mu bu mu liggéeyee pour fructifier euh, financement bi mais bu fekkee travaux domestiques yi dafay jël justement mooy contrainte c'est mhm. yooyu bu dee yow de boo xëyee da nga war a rooti da war a sokk da doo am temps pour mun a euh, liggéey am koom doo am temps aussi pour surveiller say doom comme mhm. il le faut mhm. c'est un choix à faire wala on peut chercher euh, juste équilibre bi juste milieu bi non actuellement on est on sur la voie mhm. parce que suñuy defee da demee ba alléger les travaux domestiques di fexe jigéen ñi di am financement c'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie. Ah, a beaucoup fait aussi. Ah, am na solo mais seen wàllum présence dans la politique weesu nañu jamono yi nga xam ne jigéen dañ daan accueillir rek di tàccu dëgg la léegi vous êtes présente un peu partout mais cette présence aussi est que mënuñ ci discuter un peu dans mesure où euh, exemple yoo xam ne assemblée nationale euh, présence bi nga xam ne soxna yi am nañ ko fa am na ñoo xam ne elles parviennent à sortir du lot. mais d'un côté am na ñoo xam ne euh, seen prestation souvent ñañ dañ koy xaw a déplorer ndax dañuy gis ne y a quelque mbaax à à à mener. c'est c'est que aussi il faut pas que ñu stigmatiser jigéen ñi parce que ni am lu parce que jikko la rek da jikko la. Hmm, mën na nekk ci ni mu amee si góor noonu la mënee am si jigéen. mu des nag peut-être formation parce que on est en politique politique il n'est pas dit que euh, ku ñu ku ñu ku am formation mooy nekk porteur de voix. Hmm, hmm. parce porteur de voix yi ñoom ñoo fay dem parce que askan bi ñoom ñoo lay yebal. askan bi mooy tànn man kan laa bëgg yoon yónni yónni. mais la parité dafa wàcc bu baax niveau assemblée

Mhm. parce que ñu ngi leen di defal ay renforcement de capacité yoo xam ne dangay ngay gis ku dugg assemblée début bi mais après da ngay gis de façon extraordinaire nu muy améliorer. Mhm. parce que aussi euh, bon dugal nañu parité bi peut-être au auparavant fexewuñu ba jigéen ñi ñu formé wu ba ba pare am na ñu formé wu mais am na ñu bëri ñoo xam formé wuñ mais quand même uh -huh. de rattraper le gap parce que ku dem assemblée boo xoolee début bi ak fin nu muy mel da xam ni kii am na lu ñu mais est-ce que aussi euh, vous euh, am na lu xewoon assemblée jamono yële une démission boo xam ne intrigué nañu bëree bëri mooy démission euh, Soxna Dieng Mbacké elle a été par Koura Macky entre les deux profils vraiment am na différence trop trop mais mais bu fekkee déjà ci liste bi on n'avait pas prévu que que Soxna Dieng Soxna jeen dafay dafay démissionner bu dee kooku moo nekk démission boo xam ne gars yi se sont posé des questions c'est c'est programmé <laughs> moi je ne saurais vous mm. ma ndax c'est programmé ou pas mais moo nekkoon ci liste bi ak nu ñu mënta porteur de voix moo nekkoon suppléant et c'est normal que. Mm-hmm. kële bu démissionné kële du kële du. Ah. mais aussi est-ce que bu ñu doon dem d'une seule voix du gën du gën a yokk seen seen seen seen seen seen seen seen baat ci ci ci ci bëtu nit ñi